Seydina Issa Laye Samb ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñu ngi lay fay soxna si. ngay responsable ndaw yi ci plateforme taxawu Sénégal fii ci Ndakaaru ñu dooree ak li nga xam ne mooy validation candidature xalifa Sall ak euh, Karim Wade bi nga xam ne nee nañu euh, jébbal nañ ko commission politique bu dialogue national nan nga jàngate xibaar googu nga xam ne fësal nañ ko euh, ci mercredi bi. waaw loolu daanaka lu war am la. Mhm. parce que ñaari wéy politique yooyu dañ leen xañoon ak seen yelleef pour ñu bañ a bokk ci élection présidentielle yi ñu wees donc ñaari woy yooyu dañ leen xañoon seen ak ak seen yelleef mm-hmm. pour ñu bañ a bokk ci jongante présidentielle yi ñu weesu mm-hmm. donc tey ginnaaw élection présidentielle li président woote woon na waxtaan ak diisoo ci réew mi pour mën a dalal li nga xamante ne mooy euh, politique ci réew mi mm-hmm. donc tey bu ñu demee ba nit ñi waxtaan ba jàpp ne war nañ leen delloo seen ak ak seen yelleef ndax dañ leen tooñoon loolu lu ñuy rafetlu lay doon Mhm. kon yow jàpp nga ne daal lu war la te it jot na ndax amuloon amul amatul benn enjeu bu nekk ci kanam njiitu réew mi bi nga xam ne war naa tax mu kale candidat yooyu la. déedéet réew mi benn bëgg-bëgg la amoon lenn moo ëllëgoon xel bi mooy nu muy amee ñaareel ak mu jël tendeenu mandat présidentiel donc loolu am na ko donc yaakaar nañu tey dina am ngor ak delloo ñooñu nga xamante ne moom moo leen xañoon seen yelleef ak seen ak pour ñu war a mën a bokkaat ci géewu politique bu Sénégal. te yow jàppoon nga ne tamit ñaari jàpp ñooñu ay pointure lañu ñi nga xam ne mën nañu empêcher woon Macky Sall ci élection yu ñu wees mu jot li mu bëgg. waaw loolu kay ñëpp ci amoon firnde mais président Macky Sall euh, fale mu dindi président xalifa Sall ak Karim Wade ci électorat bi pour nga xamante ne ñooñu duñ ko indi benn jafe-jafe ak benn galgal pour li nga xamante ne moo doon bébétam. tey gis nañu Khalifa Sall euh, jamono ji mu nekk ci ay doxantu nemmeeku yu bari ndax daa am lu muy waaj. du maa jul dara président Khalifa Sall dafa nekk ci plateforme buñ ko dénk ñu jiital ko ci wóolu ko ci muy taxawu Sénégal. Mhm. donc tey lii waree fam ci politique. mooy dox wax ak diisoog askan wi pour mën leen a déglu mën a xam fan la jëmee plateforme am pour mën a tontu ci li nga xamante ne mooy jafe-jafe askan wi donc loolu lu war la ci ku yor parti politique ça entre ñu ngi koy tubaab di waxee dans le cadre normal. ci fonctionnement mbir mi daal. tey jii justement leader yu bëri yor parti politique di ko mëne maanaam nekk ci kanam ñoom la ñu faral di gis comme ay candidat Khalifa Sall jamono ji euh, mënatul bokk ci benn euh, jongante euh, ndax dafa am lu muy waajal wala dafa coow li nga xam ne ñu ngi ko doon ruumandaat ay weer a ngi nii ne dafa am waxtaan digganteeg njiitu réew mi moom lay waajal moom lay anticiper fu mu nekk nii. président Khalifa Sall waxtaanul benn yoon ci lu ñu xam ak njiitu réew mi benn forme bu ñu mën a xam mais wax nañ leen ne am ànd na ak ay jigéen ak ay ndaw te tey wareefam mooy taxawu leen jàppal leen ndax ñu war mën a am doole ci seen i gox goxaan pour waajal jongante yi nga xamante ne mu ngi suñu kanam. Mhm. donc loolu lu yoon la mu ànd ak ndaw ñi ànd ak jigéen ñi pour jàppale leen ci seen liggéey ci politique. tey Dakar rek du Sénégal te gis nañ ne taxawu Ndakaaru ñoom dafa mel ni seen i activité fii lañ ko gën a concentré ndax am ngeen ay mbébét gën a yaatal seen bopp ci biir réew mi waaw daanaka balaa ñuy laax président Khalifa Sall jant bi gisoon ngeen ne tàmbali woon na ay tournée mm-hmm. jëmale ko fële ca waalo ak fi ñuy wax Tambacounda mm-hmm. donc bi loolu weesoo it biñ ko laaxee jant bi ñun doon nañ yeggali demoon nañ fi Mbuur demoon nañ fi Kaolack pour vraiment dooleel suñu ay ñoom ña fa nekk taxaw Sénégal tey kuréel la boo xamante ne fépp foo dem ci réew mi région boo dem département boo am na ay ndaw ay góor ay jigéen yoo xamante ne taxaw nañu pour vraiment màggal ko dooleel ko pour li nga xamante ne mooy euh, gën a yaatal dooleem ci réew bi wax nga ko sànq am na ay euh, dignitaire wala sax ay leader politique yu nekk ci taxawu ndakaaru tey ñuy laam-laame ne Barthélemy Diaz dañ ko nekk di waajal ngir ndakaaru ndax loolu lu ngeen mbébét la ci euh, seen plateforme bi waaw bëgg-bëgg moom ku nekk ci politique am na sañ-sañu am ko bu dee ambition nit mënu ko am ci politique daanaka mën na dem toog këram jàpp ñàmburam mais daanaka taxaw Sénégal day liggéey pour dajale ñi nga xamante ne mooy ku jëkk politique bi yëpp ci Ndakaaru ñu ànd doon benn say mhm. te incha allah bu loolu antoo dinañu toog tànn ki nga xamante ne mooy nekk suñu candidat ci élection locale yi jëm te it balaa boobu it faaw ñu xam ndax naka la ñuy fale maire bi ndax maire day am ci Ndakaaru a it parce que képp ku dégg xam na ne nguur gi mu ngi wàcc mu ngi teg ay jéego pour nën mel loolu nga xamante ne mooy taxawaayu maire Ndakaaru ci Sénégal. maire Ndakaaru googu sax euh, enjeu la tay ji yor ko ko euh, di nga am noo taxaweek euh, gouvernement wala sax régime gi fi nekk tey nan ngeen di liggéeyee ci ci fànn boobu. waaw daanaka Ndakaaru moom képp ku ko am. daanaka képp ku ko tey ci politique am nga avance bu rëy ci li nga xamante ne mooy wàllu élection mm. te ñun dañuy waajal candidature président Khalifa Babacar Sall ci jongante présidentielle yi war a am ci 2024 donc tey suñu wareef tey ñoo ñoŋal suñu taxawaay ci Ndakaaru pour liggéey boobu gën a yomb ndax ku gagné Ndakaaru rek daanaka am nga avance bu rëy a rëy rëy ci élection présidentielle fii ci réew mi. et justement booloo la Khalifa Sall euh, teg ci kanam ndax am ngeen yaakaar ni booloo googule tey moo mën a euh, def tout ngir euh, opposition bi mën a jàmmarloog régime gi fi nekk. waaw xam nga élection bi ñu jëm ay élection locale maanaam wàllu gox-goxaan mm. te élection yooyu euh, wax dëgg yàlla li ci euh, li ci li ci ciy taxawaay li ci maanaam niñ koy taxawee mooy scrutin majoritaire raw gàddu lay nekk mm. donc tey bu ñu àndul ñun ndam mënuñ ko am moo tax liy wareef mooy ñun ñëpp ñu ànd doon benn say pour li nga xamante ne mooy raw gàddu gi ñu mën ci jiitu ñun waa taxawu Sénégal ak ñi nga xamante ne moom lañ koy fas yéene àndal doon benn ndax jàpp ngeen ne <laughs> mën naa nekk ndax tey euh, lu wees bu yàggul muy présidentielle gi fi euh, mujj euh, gis nañu booloo gi fi opposition gi booloo woon joxante loxo demandoo tey ñu pare ci ñu tasaaroo am ñi nga xam ne fekki nañu kii di président am ñi nga xam ne ñoo ngay tuumalante tey jii ndax loolu dina yemb ngir nag opposition beeg société civile confiance mën cee amaat ba ñuy mën a dajaloo waaw xam nga politique moom moo ko ànd ak teexalikoo ñoo ànd. Mhm. donc loolu li ci am solo rek mooy kenn ku ci nekk la la tax a jug ak la la tax a yëkkati bu dee askan wi la xam nga bu dee du askan wi sa mbiru bopp la xam nga ñun moom fa ñu ne woon démb ba tey ñu nga fa maanaam opposition radicale te incha allahu rabbi suñu taxawaay yëpp ci loolu la jëm te comme niñ ko waxee sànq rek politique moo ni mel waaw dañ koy conseil de nit ñi rek ne te ci démocratie lañ nekk ak liberté ku neex. nga saytu fa la neex ànd fa ak ñi la neex. jamono ji jëm ci l'opposition bi mu mel ni dañoo wasaare waat carte yi ndax euh, am na ay weer ci ginnaaw ñu doon ne Sonko euh, teg na fi tànk tey mën nañ ko jàppee sax chef de l'opposition mais jamono yi mujj yi ñu gis ne xalifa Sall dafa gën a euh, taxaw maanaam gën a représenté opposition bi ndax tey euh, xayma ngeen ne euh, la mu maanaam la mu jotoon a ñàkk wala sax euh, fa ngeen yemoon laata muy yoon di ko teg loxo tey ji gën ngeen faa yi waaw sori nañ ko ndax Khalifa Sall ñëpp ko xam ku def politique lu toll si ñeent fukki at ak juróom wala ba juróom fukki at daanaka boo demee ba taxawaat ba nattu teggeeku sa kaw jàpp nañu ne la nga xamante ne moom la liñ ñi daan bàkkee war nga cee mën góorgóorlu te mu ngi ci maanaam taxawaayu dajalee opposition bi. taxawaayu nekk kuy saytu di saytul askan wi di waxal askan wi. Mhm. donc ci loolu rek la dellu ci li mu xamoon ci liñ ko jàngaloon tey loolu la dellu te daanaka réew mi euh, kilifa gu soxla la vraiment pour ci yoonu su googule gis nañu noon aligné ñoom nee nañu euh, dañoo am ay ponk yi nga xam ne jaaxal na leen lool te it bëgg nañ ñu saytu ko balaa ñoo jëm ci jongante yooyu la muy parrainage bi ak lu ñu jàppee euh, certificat de résidence yi ñoom gis nañ ne ay fraude yu bëree ngi ci ak lii di ordre de mission yi euh, yow ndax ànd nga ci yooyu la inquiétude waaw loolu lu ñu ànd la ndax boo saytoo rek euh, jogante bi ñu génn mooy élection bi ñu doon tabb ñu nekk ci assemblée nationale muy député yi. Mm. ñaawlu woon nañ li nga xamante ne mooy votant hors bureau yi maanaam ñi nga bokkuñ ci bureau ñu defal leen bataaxal ñu ñëw voté ci bureau bi par donc loolu tey yàqoon na ndax mu taxawu Sénégal bu baax a baax a baax baax ci wàllu département bu Dakar donc tey fu ñu toll woon ci dialogue politique bi te ñu doxal ko tey ñu saytu li nga xamante ne mooy processus électoral bi. Mhm. kon loolu tey nit ñi ngi ci te mën na saafara jàngar yooyu nga xamante ne yëpp posé nañu ko ci vraiment dialogue politique bi loolu la ñuy aussi addu ci wax ci donc tey lu ñuy ànd la ñu saytuwaat naka la ak nan la pour élection yi gën mën a leer gën mën a tegu si ak mbir ci réew mi. ci yooyu de waxoon na ko ba mhm. weesu na fu muy defee ay njur njaaj pour lonkuwaat ci nguur gi. ci yooyu les locales sax euh, tey nan nga jàngatee le fait que ba tey mënaguñoo am déggoo ci li nga xam ne mooy datu élection yooyu le waaw daanaka nguur gi rek moo pareegul ndax euh, ñoom dañu proposé janvier deux mille vingt deux ñun opposition bi ku jege ñu wax leen deux mille vingt un uh-huh. ndax lii xeeñ mooy bu ñu demee ba janvier deux mille vingt deux ñu tegaat ay ndëgg sërëx bëgg a daxaat lii di élection locale te it jàpp nañu ne nguur gi pareegul parce que bëgg na indi ak coppite ci wàllu décentralisation ci réew mi te loolu yëpp. lu ñuy saytu la lu ñuy yóotu la di ko xaar di ko xool moo tax moo ñuy mën a bu ñu toogee saytu dajale ne nguur gi kat parewul pour organiser li nga xamante ne mooy élection locale yi te loolu luy sooxe démocratie la ci suñu réew lu ñuy ñaawlu la it. ngay ndaw jiite ay ndaw tamit euh, ñu amaloon conseil présidentiel jëm ci xëyu ndaw yi euh, tey lan nga jàngat ci boobu boobule assise nga xam ne amaloon nañ ko sa jam ñaajo waaw day wane ne nguur a président Macky Sall eh, diggante juróom-ñeenti at yu mu fi nekk dañu tëre ci wàllu régler maanaam saafara jafe-jafe ndaw yi ci réew mi donc lii tey day wane ne eh, ne échec la te jàpp nañ ne it ne yoon bi ñu jël du yoon bi gën ndax réew mi du joo joxe xaalis rek pour nit ñi am xëy déedéet am xëy dafa am fu muy jaare boo xoolee réew yi nga xamante ne tey tegu nañ si yoonu suqaliku banqaas entreprise yu ndaw ndawaay ne ñu naan ko PME ñoo tax réew yooyu gën a mën a joxe liggéey gën a mën a joxe li nga xamante ne mooy productivité bi jur croissance tey nag gis nañ ne banqaas yooyu ci ay jafe-jafe yu metti la ñu nekk ba boo saytoo tey seeni bëgg-bëgg seeni li ñu soxla pour jëm kanam toll na si juróom-ñaar téeméeri milliards donc jàpp naa ne tey réew mi nguur gi fexe woon ba tissu industriel bi ak petite entreprise yooyu maanaam entreprise yu mag yi ak yu ndaw yi nekk ci yoon daanaka mu ëppoon solo li nga xamante ne tey mooy li ñu bëgg a def donc waaye rek day dellu muy leeral tële gi nga xamante ne nguur gi tële ne ko ci yi ndaw ñi di daan konteel ci réewum Sénégal. mais tey ndax nit mënul dundee yaakaar gannaaw lépp luñ ci waxtaanee ak it taxawaay gi nga xam ne euh, seetlu nañ ko ne euh, jiitu réew mi euh, jël na ko ci bi lépp conseil présidentiel. waaw mën nañ ci mën nañ ci mën nañ ci am njort bu rafet ndax wane na ne bëgg na waaye tey it bëgg-bëgg bi dafa am loo xamante ne ci réew fala mbir yi war a jaar bu ko fa jaarelewul it wax dëgg yàlla du sotti jël alal di ko xëpp si nit ñi loolu mooy régler problème mu emploi fii ci réew mi déedéet c'est un problème structurel te war ñu delluwaat ci gox goxaani vraiment boole leen ci maanaam les collectivités territoriales ci li nga xamante ne mooy problème mu parce que nguur moom jàpp nañ ne war na wàññi euh, taxawaayam ci dëkk bi pour dëkk bi gën a mën dox war na rek li nga xamante ne mooy les questions essentielles pour vraiment ñu mën a teg réew mi ci ci ci ci équilibre te loolu gis nañ ne tëli na ci réew mi ci am yaakaar nag ci lii di ñëw ñu war ci mën a gën a taxaw communes yi collectivités territoriales yi am ci seen pàcc buñ ci joué nguur gi gën a dooleel petite et moyenne entreprise ba pare su suqali tissu industriel bi loolu daal la ñuy xaar ci réew Sénégal ak nguuru président Macky Sall. mu mel ni ndaw yi artu nañ leen ci conseil présidentiel boobule euh, li fi xewoon weeru mars euh, muy jàmmaarloo yu métti ak it li nga xam ne nemmeeku nañ ko tamit bu yàggul université Cheikh Anta Diop de Dakar njiitu réew mi àddu ci mu mel ni tey jii da leen di artu euh, nan nga décrypter message boobu. waaw xam nga président Macky Sall moom ñëpp a ko ràññee ci menacé loolu daanaka mais menace moom daanaka ñi ñi néew doole rek ñoo koy def ñi nga xamante ne amuñu amuñu maîtrise ci seen bopp mais dañuy fàttali ne réew mi dafa am injustice injustice nag mooy jur façon jéeje bu nekk te tey nguuru Sénégal ñëpp xam nañ loxo bi mu teg wàllu yoon ci réew mi donc tey li nga xamante ne mooy yoon muy war a muy war a nekk dëgg mooy président Macky bàyyi justice moom boppam loolu magistrat yi ñoo ko sax laaj bàyyi injustice bi nga xamante ne maanaam kumba am ndey ak kumba amul ndey bi am ci réew mi. donc loolu daanaka bés bu fi dañee rek incha allah jàpp nañ ne dal dina am ci réew mi jàmm dina am ci réew mi mais du jaay doole ak wane ne maa fi nekk maa doole ji mooy régler problème yi déedéet. kon daal pour yow euh, bu ma la déggee ngay wax ndaw yi fu mu nekk nii dañoo sës moo taxit ñu wane seen bopp. ndaw yi dañoo sosoon ndax comme ni ñu ko waxee rek kumba am ndey kumba amul ndey loolu du jur jàmm ci réew te gis nañ ne président Macky Sall ci boppam moo ci addu woon ci ay nitam wax leen ne nañu moytu ndax am na mbir yoo xamante ne yu leen soxal moom ci teg loxoom ba yeggul ci kanam yoon wala yoon amul ci sañ-sañ donc loolu lu ñuy ñëw la di fàttali askan wi ne askanu Sénégal moom na boppam te président Macky Sall moomul nit ñi ba saa yu ko neexee gëdd leen mën a leen réew warul doxe noonu ci waxtaan ak dal ak njub la war a doxee. kon daal lu koy dakkal mooy lépp li nga xam ne lim nga ko muy inégalité ak it justice euh, bi ngeen jàpp ne euh, dañ ci teg loxo ñu teggi ko. waaw loolu daal moo ko fi dakkal. waaw te moom njiitu réew mi mu ànd ak dal. ci ay mbiram ak nu muy doxal doxalee digganteem ak askan wi ak way politique yi. Seydina Issa Laye Samb ñu lay jaajëfal bu baax a baax. macha ñu leen di fay lu bari ci dalal bi ngeen ñu dalal. Mm-hmm, nga jiite ndaw yi ci plateforme taxaw Sénégal fii ci Ndakaaru ñu lay jaajëfal bu baax a baax.